Moussa Sissokho maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay. Moussa Sissokho nga nekk secretaire général bu syndicat des travailleurs des collectivités territoriales lan moo xew ak seen euh, camarade bi Mballo Thiam seen diggante camarade bi di Mballo Thiam ba ñenn yenn journaux yi wax ni dangeen ko bëgg a dàq ci syndicat bi. ci syndicat. Ah, man de dama yeewu rek man sax jotu woon journal boobu man ay nit ñoom woo nee ma dañu dégg ne FGTS dañu dàq euh, euh, mbaro Dia Thiam si si si si man mu jaaxal ma trop luñ koy dàqee lan la dama xamul ban ban dàq la ñuy wax ou bien peut ñoom dañuy wax lu ñu xamul mais ñun dàquñu kenn dàquñu kenn ah. kon lan moo xew exactement si Cissokho comme que ngeen ne dàqoo leen ko ci syndicat bi ban jaxasoo moo am ci seen diggante. mais euh, man de lu ma lii lu ma jot a xam. Mhm. du moom dafa xëy benn subateel Sidia dafa génn àdduna. Mhm. Sidia dafa génn àdduna deful euh, même un mois moom mu bind daf koy wuutu ci conseil économique social environnemental. waaw bu ñu ko defee nag ñun tamit ñu bindal waa conseil économique environnemental ne ko moom du ko wuutu foofu parce que moom kenn falagu ko ba muy wuutu Sidia fu ci poste boobu parce que tamit nit da ngay xam sa bopp nga yem. Mhm. amuloo droit yoo kenn falagu la doonoo dara Sidia génn àdduna yow xalaatuloo leneen lu dul wuutu ko na ma yàlla ba dafa mel ni yow da nga yàkkamti woon sax loolu am. pour nga dem ko wutu ko loolu moo ñu jaaxal ñun ñëpp moo tax nit mu defee loolu te tàggoowul tamit ñun tamit dañu bind mais ñun suñu bureau exécutif national yónniwuñu kenn pour mu remplacer si foofu parce que tamit nañu xam ne syndicat du moomeel du propriété privée kenn moomu ko Sidia yal na ko yàlla yërëm dem na mais moomul syndicat bi du dëgg mm-hmm. dafa am ñu ko fi wutu waaw nan ngay mën a toogee yow kenn falagu la kenn waxu la dara yow ay nga bokk ko kay nit nga rocceeku nan bind ne da ngay dem remplacer Sidia xanaa nag nit boo buggee jël ay yenn boo def yenn sax nga nga bii sosé kay nit dafa làqutu bind ñun tamit ñi làqutu bind nee leen duñ ko duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg parce que moom su fekkee ne loolu la sax moom du du héritier Sidia waaw si Sidia dafa amoon benn ñu doon àndal ñu sonnoon si moom ñooñu laajtewuñu ko moom mu koy laajte moom daf su gën a yeewu ñeneen bi voilà loolu mooy wax bi. kon procédure bi naka la war a demee exactement pour am. procédure bi waaw. kuréel syndicat dafa am lu ñuy wax bureau exécutif national bureau exécutif national bi mooy décider dañuy nit yi dañuy toog waxtaan loo xam ne moomuloo ko du sa moomeel nga toog yow xëy suba teel rek. ñëw dafa mel ni nga man ma koy man Moussa Sissoko ñëw ne tey man maay nekk président Sénégal te kenn falu ma ma dem désigner suma bopp si benn poste loolu nit dafa war na ko def. Euh, léegi kon euh, seen syndicat bi euh, kan la tànn kan la joxoñ carrément pour mu mën a jël boobu boobule ca conseil économique social et environnemental. xam nga man damay wax benn affaire. Mhm. man dama ànd presque quarante ans. Sidia bu may ànd ak moom ngor reconnaissance moo ñu boole mu nekkoon suma frère mu may jàppale si lépp ma koy jàppale si lépp ni doon ànd si ngor ak respe mutuel kooku tey bu dëddoo man utuma poste lañ toog utuma buggoon poste man kenn du ma ci jiitu mais man ànd su may ànd ak nit ànd ngor lay ànd ak moom bu mu gaañoo xanaa lu gënoon rafet. boo buggee boo ko buggee wuutu sax te yow amuloo si sax benn droit nga waxtaan seeg nit yi mais di làqutu di bind pour de remplacer ba mbir mi feeñ xam nga loolu dafa ñaaw loolu kanam nañ ko mën a ko expliquer loo xam moomuloo ko yow du sa moomeel nga bind ci suuf hmm. da ngay bëgg a remplacer nit boo xam ne bu mu gaañoo sax yàggul xanaa sax nga am pudeur sax boo amul pudeur nga woo nit yi nga waxtaan ak ñoom mais yow nga def ne sa alal la wala moomeel yow yaay fal sa bopp mais mos nga gis kuy kuy kuy fal boppam loolu dafa yomb. léegi kon syndicat bi kan la tànn exactement comme que nga syndicat bi. Mhm. fu mu nekk nii. le bureau exécutif national. bu nga xam ne ay kuréel yu bare syndicat ñoo ko ñoo ko wër ñoom ñoo décidé lu ëpp fukki ak syndicat ak juróom-benn xaw ma juróom-ñaar. ñoom ñoo ne man ci soko man la ñuy porté ma yore syndicat bi ba ñu dem congrès. Mhm. bu boobaa syndicat bi nag mooy fal ku ko mhm. yaa ngi dégg mais fu mu nekk fi secrétaire général intérim moo fi am fi fi kenn nekku fi secrétaire général faluñu kenn congrès falul kenn. voilà. d'accord euh, léegi euh, Moussa Cissokho euh, fan temps yëpp yéen a ngi doon amal grève yu métti te tàng te yàgg aussi euh, ñu déggoon si yéen a ngi euh, négocier yéen a ngi waxtaan ak les autorités étatiques fan ngeen toll ci grève bi fan ngeen toll si négociation yi ak autorités étatiques yi. waaw dañuy dañuy tàmbalee rek di sant suñu borom parce que mu ñu permettre tey collectivité territoriale yi ngi dem. pour régler de manière définitive grève bi ngay wax léegi ne def na plus d'un an parce que yàlla dimbali nañu bu ñu falee Modou Diagne Fada mu ñëw au poste de ministre des collectivités territoriales lu mu ñu diggoon yëpp def na ko nee na daf ñuy rencontrer tout d'abord à rencontrer ñu nee na bu bu bu ñu rencontrer ba pare dina fexe ba boole ñoo premier ministre bi nga xam ne moom moo yore mbir mi pour ñu jéem a seet ñu koy tàmbalee pour trouver solution loolu tamit def na ko boole nañoo premier ministre bu ñu toogee premier ministre premier ministre nangu ne ne li ñuy li ñuy réclamer nii suñu droit la mais comme que mbirum koppar la dañuy teg benn comité ad hoc boo xam ne ministère yëpp concerné ni ngi ci ak ñun intersyndical bi ñu ngi ci pour ñu defar ay papiers yoo xam ne pour demander au maire et au président du conseil départemental ni fay ni fay augmentation yi demander au payeur percepteur municipal ni fay ko mais loolu la ñu def ni nga koy càmbar defar nañu lépp fii ak quinze jours comité boobu dina pare liggéey bu boobaa ñu commencé procéder au au paiement parce que tamit xaalis boo koy génne da war a def ay acte réglementaire yoo xam ne mooy permettre nga fay loolu voilà hmm. bu amul doo mun fay mais hmm. ya am nañ ci yaakaar trop hmm. parce que liggéey bi commencé nañ ko altine bi passé avec la DSPL ak ñëpp liggéey bi daal ñu ngi dox moo tax ñun ñu demandé liggéeykat yi comme que tey dem nañu lu ñu musuloon am am nañ ko defal nañu ay proposition proposition yoo xam ne si ay famille néew dinañu fexe ba fay ñu ne nag lépp lu ñu jàppoon muy grève ak lu munti doon nañ ko bàyyi teg ko si suuf ba ñu régler affaire yi si ak quinze jours voilà d'accord léegi en tant que euh, syndicaliste en tant que sénégalais euh, fonctionnaire aussi naka nga gisee dund gi nga xam ni dafa cher ba sénégalais yëpp di ko jooy actuellement Moussa Sissoko waaw xam nga loolu affaire yi dund bu cher ak loolu yëpp kooku kenn du indexé kenn état rek la ñu mën a moo tax ñu bëgg ñuy lancer un appel solennel au président de la république ne ah fu mu nekk nii prix yi na sénégalais yi ñu ngi souffrir ci prix cher yi état bi nag dafay war a ñëw accompagner leen pour wàññi souffrance su sénégalais yi loolu daal la ñuy en tant que citoyen woote président de la république di seetaat ñuy càmbale les prix yi pour pour permettre sénégalais yi quand même ñu am accès aux denrées de de de première nécessité. Euh, beneen ponk euh, fii gis nga fan yëpp ñu ngi laam-laame naan dañuy reporter élection présidentielle euh, bu vingt cinq février deux mille vingt quatre est-ce que yow en tant que sénégalais d'accord nga si ñu tuxal élection yi waaw wala déet. yaa ngi may bëgg a dugal ci problème boo xam ne ndax ah, lan. Ah, <laughs> xanaa doo voté ji rek. <laughs> kooku du juyoo du citoyen xam nga léegi ñun lan la ñu mën mm-hmm. bon di bu vote jotee calendrier euh, kii bi nuñ koy républicain bi mm-hmm. ñun leen rek la ñu ñoo ah, ñoo nee woon le vingt quatre du vingt quatre février la di waaw waaw le vingt quatre février mm-hmm. su fekkee ne amul benn gàllankoor mais nañ dem ci élection maintenant nag su fekkee ne am na gàllankoor tamit mais du ñun ñoo koy wax mais ñi nga xam ne ñooy organiser élection yi ñooñu ñoo war a dem wax ak sénégalais yi nee leen lii ak lii moo tax ñu repousser élection du dëgg ñu repousser élection yi. d'accord ñun ñoo koy wax. Mm-hmm. du dëgg parce que tamit ku nekk. waaw da nga am foo yem. foo yem ñun citoyen lañu dañ ñuy wax rek ne tel jour la ñuy dem voter di ñu jël suñu carte dem voter mais kañ la ñuy ak kañ la dul voter ñun seen yoon newu ci. dernière question euh, si Sissoko moom mooy euh, pour yow yan défi mooy xaar euh, njiitu réew bu bees bu Sénégal bi euh, dans quelques mois. ah mais xaw ma nu ñu koy mais mooy chance bi mooy nga xam ne tey euh, jàmbat yi bare na boo xoolee secteur yu bare ñu ngi jàmbat mais yaakaar naa président Sénégal bii di ñëw dafa war a problèmes sociaux yi parce que tey kooku mooy demande forte demande bi bu ko réglé defe naa ne nguuram dina la yomb a gën parce que Sénégalais amuñu problème ñu neex a dëkkal lañu. Mhm. bu ñu bu seen vie yombee ñoom amuñu problème mais nag léegi pour pour pour ñu def loolu léegi ñu ñaan yàlla rek comme nga nee nañu pétrole ak xaw ma leen gaz bi ngi ñëw waaw mais yàlla na yàlla indi pétrole ak gaz bi xanaa bu ñëwee. dina alléger un peu la souffrance des Sénégalais yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm rek. voilà loolu rek lañ koy wax. merci Moussa Sissoko ñu ngi lay jaajëfal. ñu ngi leen di remercier ñun tamit. si tontu bi nga tontu suñuy laaj Moussa Sissoko ñuy fàttali ne yow yaay euh, secrétaire général bu syndicat des travailleurs des collectivités territoriales merci. jërëjëf soxna si.